Aja Alliance maa ngi lay ñu la koy delloo. maa am nga jàmm. waaw sant nañ ko tedd ko bu baax. mais tey alliance bu ko duggisee ci stade bi lan nga yëg. waaw sant yàlla rek comme lu ma daan yëg sant naa yàlla parce que ndaw laa ay xale lañ dañuy wut ci ku doon may sa bopp doo ñaax comme lu mooy wax rek chaque jour. nañ nekk si lu ñu war a nekk li si des ñu bàyyi ko si loxo yàlla. yàlla moo yor ndam moo koy maye kenn mënu koo may sa bopp yàlla nañu ko may ci bari Seydina Muhammad. mais sa adversaire tey lan nga koy indil. lamb ju neex lay doon parce que dama dégg gars yëpp dañuy wax day xeex day xeex. Ah. tey lamb ji bëri lay jeexee incha allah ci kattanu yàlla xeex. non non du am xeex. tey doo xeex. yaakaaruma ko de. da ngaa bëgg de. non yaakaaruma ne di am xeex tey. te booy bi instant yi moom da laa ñeme. waaw moo tax ma bëgg ñu bëre ñu xam ne man dama mën a bëre. damaa bëgg ñu xam Sénégal billahi damaa mën a bëre. mais lan nga xam si sa adversaire. xaw ma ci moom dara wallahi musuma ko seetaan billahi wallahi musuma ko seetaan du ma jëlee combat laa dugg YouTube seetaan ñaari combat am. waaw kese laa seetaan te YouTube laa ko seetaanee. <laughs> tey boo ñëwee mu ne la du ñu bëre dañuy xeex maa ak yow boobaa nu muy demee. <laughs> waaw mais xeex ñaara koy def su fekkee da ngay dóor te du ma fayu xeex bi du neex xeex balaa neex nga may door may fayu foofu la xeex bu neex ñoom wax dañuy xeex rek mais duñu dañuy alliance day xeex ñu dóor ko mu fay mu maam mu ñu jàpp ko pour juumloo ko. alliance mag la mag na maa ngi ñaan ci barke Seydina Mouhamed yàlla mu suñu borom bi defal ndam sant nañ yàlla bu baax a baax. kon daal mën nañ xaar combat bu saf-saf. bu neex sax bu am bëree sax. bu am bëree bu nar a neex. waaw incha allah ci kàttanu yàlla. ndeysaan maa ngi lay jaajëfal. jaajëf kontaan naa ci yéen. léegi léegi nga ne. consigne lañ ko bëreloo day respecté consigne bi. mooy ñëpp xam nañ na jàmbaar la gaynde boo arbitre bi ne prime day léegi nag tey dañ ko xaarloo professionnel la te moo mën booy moo ko doole dañ ko wax bu ko defee si kàttanu yàlla yàlla dina ko may ndam te yàlla na ko yàlla may ndam lu sedd guy. ndeysaan jaay aca Fall bi maa nga jàmm. bu baax taw feex. tey nan nga indee waaw kontaan rek. nu ko gisee nii kontaan rek duñ jum benn yoon moom. mais yow lu tax lu tax nga ne eh, ki muy bëreel moom ah, du mbër. non maa xam ne du mbër rek maa booy bi booy bi damaa xam ne ñii Alliance ñu mu bëreel war na yàlla xoolal booy bi. mbër ba pare ngeen jël ko. non du mbër da ngay may sant nii rek dañ koy may sant nii du mbër. waaw loolu la lamb boolewuñu war na suñu baax xaalis ñu boole ne waaye du lamb. ndeysaan. wallaahi. Ah, mais en tant que jeune. waaw. fan yii na nga gisee réew mi. na trop. tàng na trop. waaw du yoon. mën nañ war nañ may Ousmane Sonko nag jàmm nag. dëgg la war nañ ko may jàmm parce que jeunes yi sonn nañ. dëgg la jeunes yi di xeex ndax lan Ousmane Sonko. dëgg la dañ ko Macky Sall moolul li nga may jàmm. mais est booy war nañ génn di daaxante ak policiers ci kaw tali bi. yoon la loolu dafa yoon la parce que ñoom loolu bëgg moo tax ñu mënuñu toog di xaar. loolu yoon la yoon la. lan mooy yoon la. yoon la na parce que tamit lii nii nii nekk bi tamit di bëgg a tamit tij Ousmane Sonko si neen tamit toppoo ñu ko dara ah te Ousmane Sonko la am. peut être mën nañu ko war a pa da ngaa war a bàyyi. mii di wax yoon la est-ce que def loolu. bañ a def loolu bañ a def loolu dama si maj waay yow. da nga siy saf sap saf sap laay def ma siy saf sap. di dëbal maa njëkk a taal man maa njëkk a taal. ñiy taal maa njëkk a taal man. da ngay saf sap. bañ a saf saf sap laay def. di dëbal ma taawan bi mu pënd. bu mu mokk bu mu mokk rumbax. maa doon par la ji fàlloo. maa duñ la loolu loolu maa man taal man man taal. fooy taal yow. fépp laay taal. jaajëf waaw. moo ngay xëppoo li nga xamante ne mooy débat bi ndeysaan nee naa la fii bu fi mbër tolloo ndeysaan lu ne lay yëg ndeysaan la grand champion daanaan la champion la moo Alliance Baldé nekk combat bu spécial combat bu saf sap combat bi soxna jaara ak ki nga xam ne du yomb bu naree yomb du gis ak awa laa ilaaha illallaah arbitre ba sifflé na Diaz nee na ma ànd bi tey. waaw mais c'est normal c'est normal ndax fi mu jugee moo tax. ñaari mbëri door mi ngi door ci mi ngi wër ngemb. ndeysaan Alliance oh, daanu na laa ilaaha illallaah Alliance jommi na moo ngi ci digg géew bi Alliance jugal Alliance jugal bëri nga ndeysaan Alliance ba tey ndeysaan Alliance waaru na Alliance instant waaru na xamul lu ko daan ndeysaan gar na gémmañ ba. non dafa jommi. oh. arène nationale. déception. déception ko dal quatre défaites arène nationale moom Alliance Baldé. oh Alliance Baldé. Alliance Baldé lan la luy problème am. luy problème bi. est du dem defaruwaat bàyyi lamb ba ci kanam. sa parce que mënoo saa ñëwee ñu daan la. te ci li ngay bëre lañ lay daan. yaay attaqué xeex bi yaay koñe yaay gañe. mais dañ lay daan. kon lan la Alliance Baldé. war na xoolaat toogaayam war na xoolaat toogaayam. ndam waye lamb ni la bokal me nak lamb ni la lamb ki beure daanu ku beure wu do daanu ku beure wu do daanu xalil daanu ma waye neena la ku sa yaay di jambar do daw xare do daw xare wóor na yàlla dëgërul nga ñëwaat da nga bok ci lamb jaxale champion la daana la neena nga daan nga fi ku ne bu beure mu neex bu bako mu neex ndaysan mom alias mobilisé ndaysan alias jogol ndaysan alias ba tey alias ba tey jogul ba tey jugul ñu koy soti gàllaaj mu yëngal bop ba waaye luy problème bi alias balde luy problème bi ndaysan Alias Baldé. ndeysaan. Laurent oh. nii la daane Alias Baldé. daanaan la da woo ci xeex ba mu ñëw bu plaqué ko. ndeysaan suuf gi dara newu ci. ba tey daa waaru. est moom doo entraîner suuf gi tamit. ndeysaan war naa entraîner li nga xamante ni mooy suuf si. non suufam moo koy daan. ndeysaan suufam. ndax saa yoo plaqué poids bi day ci kaw. dëgg la te poids bi boo pee ci kaw dañ koy daan facilement. kaw gi rek lay liggéey kaw gi lay liggéeyal. ndeysaan na defar suuf gi. waaye poussé moo ngay wër géew gi. waaye xel na ko lamb bàyyi xel lamba ngi ci kanamam xale bi lamba ngi ci kanamam bu bëree mu neex bu bakkoo mu neex xale bi lamb na ko bàyyi xel dafa am jom ma ne xale bu bëgg boppam la ndeysaan ca kii nii am fu lak na ko lamb bàyyi xel am personnalité